taaratul maiya ñu dellu ci wiyaat dégg nga jàngal nañ la ndox mu laab man a xamee ak mu man da xamee laab ak ndox nag benn njàpp lay do wala sangu wala boo setal sawe fu nekk yooyu la lay jàngal baabu sifatil wudo li muy bunta biral la melow njàpp soo demee ba bëgg a jàpp hmm. anam nu ñooy jàppee hmm. wa mas nooni ak lu ñu sunnaale njàpp hmm. ak yan ngay def ci njàpp dañu wax na ñoom duñ ay farata waaye ay sunna lañ ca njàpp la wa mafruuti yi ak lu ñu farataale njàpp ak yi nga xam ne day naan ñoom ay farata lañ ci njàpp loolu itam dana ci wax wa zikril istinja ak tuddu tan ak ak tuddu tàncu ak mbiram tàncu mooy seetale yoonu sobe mm. lu muy ndox mm. fop fi sobe doon jaare di génn mm. mooy istinja mooy eh, seetale yoonu sobe ndox mooy ragg fi yoonu sobe doon jaare di fi sobe doon jaare di génn wala istinmaar ak dawande koo bant mooy pompe fi sobe doon jaare di génn mooy seetal ko xam du xamee ci ndox bunt bi lay jàngale baabu sifatil wudo li muy bunte biral la melaw njàpp wamat noonu yi ak lu ñu sinnaali njàpp mm. wam roodi yi ak lu ñu farataali njàpp mm. wasi listin ja ak tuddu tàncu mm. wasitin maar ak dawande goban walay sa listin ja o de tàncu mimma de xam ne yajibu dana war an yu sala bu fat bii cam alwudoo njàpp mu ne tàncu ne moom ak njàpp dañoo war di jokkaloo ni daal jël na ndox setal na fi sobe doon eh, génne ci yaramam ba sobe laalatu ko fenn dund nit boo ci loolu rek ku war a jàpp teg ca la walaytu listin jaaw de tàncu même ma de lu xam ne jibu dana war ayu sala bu jokkale fat bi cam alu doo njàpp waxuñ ne dafa war di jokkaloog njàpp laa de bu ko lim fii sunanil wudoo ci sunay jàpp wala fi faraidi du càggen ay faratay njàpp hmm. kenn du wax ne sunna la ci njàpp hmm. kenn du wax ne farata la ci njàpp hmm. jaamu boppam la rek buñ soxla ci nit ki balaa julli comme ni njàpp doxee jaamu boppam buñ soxla ki balaa julli day jox nit ki laabu xabas day jox nit ki laabu hadas comme ni ñaar ku ci nekk jaamu boppam la nag duñ wax ne na dëgg la dañuy def istinjaa jëkk nag mm. door a jàpp mm. li ko nit ki mm. setal yoonu sobeem dara jàpp moo gën a yomb waaye su jàppoon baagal bëgg a setal yoonu sobe mën naa dema dem ba ca kanam njàppum far ci firee ko wala njàppum du ci firee ko waaye set gañ soxla du mën a am loolu rek moo waaye jaamu ko fu mu la abrisin woomu min baabi min ijaabi sawali najasati mu ngi bokk ci bunta waral ak dañalee sobe bi ci moom li am lu ñu yoonal la rek pour bu nit ki lalan taame sobe buy julli woomu istinja min baabi ijaabi sawali najasati mu ngi bokk ci bunta waral ak dañalee sobe bi ci moom abrisin maar wala ci dawande koo bant li Allah yu salliya ngir bu den muy julliaale mm. biha ak sobe mm. fi jasadihi ci yaramam mm. duut na nit ki bu fajee soxla wonogam boppam fi sobe si doon jaare ba mu set rek dafa war a jëfandikoo ndox ci sobe istinmaar lu boppam la istinjaar lu boppam la njàpp lu boppam la wuy siw dana doy fi'luhu jëfam bi xayri niyatin ci lu dul héene nit nag su fekkee na soxla woon ak baagal ragg fi sobee su doon jaaree ba set wecci wecci te jubluwut ci ragg gi jaamu yàlla xanaa teyaa booy ragg lu dul xam waaye mën na dem jàpp nag loolu historien bi soxla woon muy set xamee na ci raggam gi wa kadalika naka noonu xaslu sawbi fóot malaan an na ji si muraaji sobewu malaan bu ci sobe nekkee nga fóotee ko ndoxam mut ba sobee sa set hmm. donte jubluwoo ci laabal malaat mi it hmm. tewoon malaat mi laab na hmm. ku ko dana mën a julli waaye nag bala nga am tiyaabo ragg gi nag day fekk bi nga koy ragg sa dem ci ne liilu yàlla santaane la nga jublu ci def gi yàlla rek jaamu yàlla wa sifatu listin jaa melow tàncu wadewuñu sob nit nag su demee bay setal yoonu sobe xëy na man na ko defee ci ay de waaye defin wi sopp nag hmm. ay yabda mooy mu jëkkee hmm. ba da xas li yadihi ci gannaaw tooyal loxoom hmm. dafa jëkk a tooyal loxoom ba mu tooy balaa koo jëmale ca barab ba muy ragg tooy gi li muy jëriñ mooy loxo bi bu ci xëñ gi kare loxo su fekkee dafa tooy xëñ du cay gaaw a jàpp bu baax a baax su fekkee dafa jël loxo bi teg ko fi sa doon génnee te fekk loxo bi tooy man naa waral xëñ nga sopp loxo bi yàgg ci lool hmm. waaye loxo bu tooyee nag hmm. door a dem ci bi sobee si nekk hmm. mën naa waral xëñ nga du ko topp loolu moo tax ñu santaane ay yëpp daa mooy mu tàmbali ba nga li yeddi ci gannaaw tooyal loxoom fa yax si la mu raxas maxrajal bawli génn mu bawli génn waaye gaanu waaye bi su ko fee mu ngeen njëkk raxas génnu kaay sobe bi faree kanam bam set mu door a wéy ca gannaaw mm. ndax su koy mm. de wéy ca mm. te setul dara mën na cee bàyyee ko laal ko te du ko yëg su waa li mu bëggoon muy laal mën na ko bañ a wala mën naa dem ba ca kanam ay sikka de koo gaar ci ndax dara bawoo na ci laal ko wala dara bawoo ci laal ko yëm na da koy sonal su fekkee raxas na ko bu setam nag kooku moom day set rek te du am benn fayaxtila mu raxas maxrajal bawli génn waay gaanuwaay bi summa yam saxa topp mu fomp maa li nga xam ne fil maxraji nekk na ci beneen génn waay ba minal ada ci sobe bi madarin ci xogg aw xëyrihi wàllu mooy xogg su raxasee génnukaay gaanuwaay bi ba àggal dafay fomp génn waay sobe bi gannaaw mën na koo fompe xoggu suuf hmm. mën na koo fompe lu mel ni ab bant hmm. mën na koo fompe lu mel ni xob hmm. waaye nag bu mu ko fompe lu am xorma mooy xaalis wala wurus wala lu ñoo lekk walla kayit gu def mbind waru koy fompe bu mu fompe itam lu xam ne dafa ratax ba man de dindi sobe si ndax kon liñ bëgg du amee ca loola bu mu ko fompe itam lu xam ne dafay gaañee ndax nit warul bi jël ba fu mu mu fo bi dana bi ma ci xoog hmm. aw xëyri yi wala lu dul hmm. aw wala mu fompee sax bi yeddi ci loxoom su ma haa topp mu xokk loxo bi hmm. biir ardi ci suuf si waya silaate mu raxas ko su ko dindee loxoom nag day jël loxo bi diri ko ci suuf bu dal di ko raxas naa waral xañ gi ko doon war a topp gannaaw diri na ko ci suuf kañ googu dafay jeex aw bi yadihi walla ci loxoom su ma yahukkaha topp mu hokk loxo bi bil ardi ci suusi wayaxsilaha te mu raxas ko su ma yastanjiya topp mu tàncoo bil maayi ci ndox su fompe foofu ba set nag mu doog a ndox sotti ca di ragg wuyu waxtu la dana mu jokkale sabbaho sottim bu demee bay ragg barab booba nag su tàmbalee sotti day sotti darag hmm. fekk ba muy setee hmm. waaye waru ko dogale hmm. waaye sarqiya dana mu yolom lu xalilan lu néew mooy mu toog toogin wu jag wu xam ne barab bi dana firéeku du am ak rasu ba mu mën koy rag-rag gu set a set su ma yastanjiya topp mu tàncoo bil maa ci ndox yu wax si la dana mu jokkale sabbahoo sottim waaye tarqi dana mu yolom lu xalilan lu néew wuyu jiir dana mu rafetal har kadhalika raggee loola le bi hmm. yadihi ci loxoom hmm. hatta yatanazzafa ba mu set hmm. day sot de ragg ba foofa barab bi sobe sang ci suy sotti ndox di dawal loxoom loxo bi day rattax su dee maanaam barab bi day rattax su demee ba yëg ci barab bi ñaaf rek mandarga la ci sobe nekkatu wuy ci dana mu rafetal har kadhalika raggee loolu bi yadihi ci loxoom hatta yatanazafa ba mu set hmm. walaysa alayhi waru ko xaslu hmm. maa raxas li nga xam ne hmm. batana biiru na mu minal maxrajayni ci ñaari génnuwaay yi génnuwaay safa bi nag li dikk ba ci buntu bi dindi ko ragg buntu bi ba mu set su ko defee rek wàcc na ja waaye la ne ci biir sonu daaf si kenn santu ko ko raxas walaysa alayhi waru ko xaslu maa raxas li nga xam ne batana biiru na mu minal maxrajayni ci ñaari génnuwaay yi sarakat bi dafa wax ne sëriñ bi minal maxraj yi la waroon a wax ci génnuwaay ba mu ne ndax lan génnuwaay gaanuwaay ci góor xel dajut loxo de dugg ci biir banaan day raxas kon génnuwaay dem joor rek moo tax sëriñ bi di wax kon su xee waxoon mu ne minal maxraj bil ifraadi bañ a wax minal maxrajayni bi tasliyati hmm. sarakat bi de loolu la wax de hmm. dégg nga hmm. waaye su xeeboo de mu bàyyi fi minal maxrajayni bi tasliyati ah su xeeboo mu bako de ndax li ñoo jàng góor rek moomut ko li ñoo jàng góor rek moomut ko de su xeeboo seen seen seen seen lu wax de mu bàyyi fi tasniye li ñoo jàng góor rek moomu ko walaysa alayhi waru ko xaslu hmm. ma raxas li nga xam ne hmm. batana biiru na mu hmm. minal maxrajayni ci ñaari génnuwaay yi wala yustanja defu tàncu min rihin ngir ngelaw nit ki ngelaw rek moo génn ci moom waru tama day raxas mu doon jaaree loolu jéggi dayoo la bokkul ci sunna santaane wuñu ko wa man istajmara ku dawande ko anamu bi salaasati ahjaarin ci ñetti doj yu yaxruju yooyu dana génn mm. axiruhunna aji mujj seen mm. naqiyan daaji set mm. kon it aj saa hoo mu doy ko walis la nit su fekkee dafa faj soxla wonogam baagal muy ganuwaay wala dem joor jël doj fomp barab ba jël doj fomp barab ba doj fomp barab ba doj dara dara dara ci jeexi topp ko loolu mën na ci hóoloo ne barab bi set na te sel rek lañ soxla mm. mu dem jàpp ci lu ci lu muy jëfandikoo ndox mm. wa mu ni soj mara ko dawande koo namu bi salaasati ahjaarin ci ñetti doj mm. yaxru ji yooyu dana génn axiruhun na aji mujj seen naqiyan daaji set kon itam ay saawoo mu doy ko walis ndox waaye nag wal maa u ndox nag adharu moo gën a laab ca barab ba waaye ndox nag moo gën a mën laabal barab bi ndax moom mooy mën dindi jëmm dindi jeexit hmm. bu fekkee fomp la hmm. mën naa dindi jëm ba du fi neexati hmm. waaye ak dindi jeexitam nag kooku sérieux wut waat yëbu te moo gën a tey ci bakkan te itam moo gën a dal xel ndax xam nañ ne moo gën a sell nit mën naa fomp di sikk lim def doy na am doyul waaye kirag doo am benn sikk ci ne lim def doy na waaxab bu te gën a sopp ci la loolu maa ci borom xam-xam yi baax na ko wa ma ni ma mara ku dawande ko anamu hmm. bi salaasati ahjaarin ci ñetti doj hmm. yaxruju yooyu dana génn hmm. axiruhun na aji mujji seen na qiyan daaji set fanit ay saahoo mu doy ko walis ndox wal maa u ndox at haru moo gën a laab ca barab ba waat yëbu te moo gën a tey ci bakkan waxab te moo gën a sopp te noonu la maay jëm ci borom xam-xam man lam yaxruj ku génnul minhu ci moom bawlun gaanu wala xayitun du càggeen dem joor wa tawadaa tem jàpp li hadasin ngir toj aw nawmin wala nelaw aw wala mu na jàpp li xeeri daalika ñaa lu dul loolu mimma ci lu xam ne yoojibu dana mu waral alwudu njàpp fala budda déet jaar min xasli yadayhi ci raxas ñaari loxoom qabla duxulihima mm. te njëkk seen tabbi ñoom ñaar mm. bilina ca ndab la mm. nit bu jógee bëgg a doonte la sax moom benn gaanu waaye génnut ci moom benn dem joor génnut ci moom waaye jóg na bëgg a jàpp balay dugal loxo ci ndabal njàpp li da koy raxas ba ci ñaari takku njare raxasum bu njëkk bi da koy def bala moo dugal loxo ci biir ndab li loolu nag lu ñuy jaamu yàlla rek la loxo yi lum set set balaa koo dugal ci li muy jàppee war na koy raxas donte woon dafa demoon ba sóobu ci njàpp njàpp loolu yàqu muy tàmbali haat teewut buy tàmbali haat loxo yi balaa koo dugal ci ndabal njàpp li war na koy raxas lu ñuy jaamu yàlla la dégg wa man lam yaxruj ku génnul minhu ci moom bawlun gaanuwaay wala xayitun du caageen dem joor wata tawaddaa tem na ma jàpp li hadasin ngir toj aw naamin walla nelaw aw walla mu na ma jàpp li xëyri daalika ñaa ngir lu dul loolu mimma ci lu xam ne yooy jibu dana mu waral alwudu a njàpp kon fala budda déet jaas min xasli yaday ci raxas ñaari loxoom qabla duxulihima te njëkk tàbbik ñaari loxo yi bilinaayi ca ndab wa min sunnatil wudu bokk na ci sunna yi njàpp xaslul yaday ni raxas ñaari loxo qabla duxulihi ma ci njëkk seen ak tàbbi fili naa yi ca ndab la bokk na ci sunnay njàpp raxasu boobu ngay tàmbalee bala ngaa dugal sa ñaare loxo yi ci ndab li ngay jàppee wal matmadatu ak gallax ndeku moom itam sunna la ci njàpp wal istinsaaqu ak sorox ndeku moom itam sunna la wal istinsaar ak piiru moom itam sunna la wa masul udunayni masa ñaari nopp sunnatun sunna la masa ñaari nopp moom itam sunna la wa baaqi yi li def ci njàpp nag diggante raxas tànk raxas cëlmaay masa bopp raxas loxo ak yi demee noonu lu ci mën a doon faridatun farata la léegi nu ñuy nu ñuy jàppee la lay waxal fa man qaama ku na mu ila wudu in jëm ci njàpp min naw min tukkee ci nelaw aw xayrihi wala lu dul nelaw nit bu jógee ba bëgg a jàpp moo xam fa doon nelaw wala ci leneen la newoon waaye jóg na ba bëgg a jàpp faqad qaala wax na baadul ulama lenn ci borom xam-xam yi kenn ci borom xam-xam yi te mooy sayid ibnu habib moom de nee yabda u dana mu tàmbali fa yusammi mu tudd allah yàlla suy tàmbali njàppam da wax bismillah yabdawu dana mu tàmbali fa yusammi mu tudd allah yàlla walam yarahoo gisut loolu nag mooy tudd gi yàlla baaduhum lenn ci borom xam-xam yi min al amri mu bokk ci digle bil maaruf ci lu baax xam nañu itam nag ñoom tar nañu tàmbali njàpp nga di ci wax bismillah moo tax waxu ibnu habib bi ñoom gisuñu ko muy amrun bil maaruf am nañu dañ koy bañ am ñu dem ba da dafa war waaye siinu ci masak mu lay ko sopp na wa kawnul inaay nekk ak ndab li hmm. ala yemini yi ci ndeyjooram hmm. am kanu moo gën a jàppandi hmm. lawoo ñaal ko fii tanawuli yi ci jàpp ci jottale ko soo dee jàpp ndab li ngay jàppee gannaaw lu ubbeeku la nga di sa loxo di tànk lu mel ni aw ànd la wala aka bool la wala aka pan la ak yooyu mu fare la ndeyjoor ci la lay gën a jàppandee wa kawnul inaay nekk ak ndab li ala yemini yi ci ndeyjooram am kanu moo gën a jàppandi loo ñaal ko fii tanaawuli jotale ko wa yabda'u dana mu tàmbale njàppali fa yaxsilu mu raxas yadayhi ñaari loxoom qabla yudxilahuma njëkk ba mu tàbbalat ñaari loxo yi filina ci ndab li salaasan ñetti yoon buy tàmbali njàpp mu ngi koy tàmbalee raxas ñaari loxoom loxo bu nekk ñetti yoon balaa mu leen a dugal ci biir ndab li muy jàppee fayin kaana bu nekkee xadd baala di ganuwaay aw taxaw wata wala mu dem joor kon xasala na mu raxas saali ko loolu ñu tudd te mooy ganuwaay wala gal dem joor minu ci moom su ma tawa daa topp mu jàpp su fekkee dafa amoon soxla boo nag ba faj ko baa gal nag dañoo bëgg mu setal fi sobe doon génnee ci moom ba pare door a sóobu ci njàppam ndax bu jàppagut lay gën a yomb ci moom summa gannaaw bu mu raxasee ñaari loxoom nag mm. ba ci ñaari takku njar mm. yu dëxilu dana mu tabbal ya dawoo loxoom fili ci ndab li mm. bu raxasee ñaari loxoom nag lay door a jël loxo bi dugal ko ci ndab li fa yaaxudu mu jàpp almaa ndox mi mu dal di ci tànk ndox yu mat mi du mu gallaxndi faawu gémmiñam salaasan ñetti yoon su ko dee mu gallaxndi ñe gémmiñam ñetti yoon min xarfatin ci tànk wahidatin ba de benn insa bu ko soobee aw salaasi xarafatin walla ñetti tànkin su ko neexee benn tànk bi ci lay gàllax ndeku dellu ci gàllax ndeku xapp dellu ci gàllax ndeku xapp muy ñetti gàllax ndeku ci benn tànk su ko neexee yit nag mu tànk gàllax ndeku dellu tànkaat gàllax ndeku dellu tànkaat gàllax ndeku muy ñetti gàllax ci ñetti tànkin lu mu ci def rek baax waaw fa yaaxudu dana mu jàpp almaa ndox ma hmm. yu mot mi du mu gàllandi faahu gémmiñam hmm. salaasan ñetti yoon hmm. min xarfatin ci tànqin waahidatin bade benn insha bu ko soobee aw salaasi xarafatin wala ñetti tànqin ñi mottali affaire sëlmu wayni saaka bu soccoo groupement yi ci baaraamam faasanun lu ñu sopp la ndax buy gàllandeku sax su fekkee soccoon na baaraamam kon sax baax na su fekkee soccoon na bant avant muy gàllandeku kon itam soccoo bant boobu mën na ko doy loolu doy na la ma ne doy na waaw nga jàng ko boobu baax loolu doon jàngal affaire njàpp ñu ne ñu ngi nekkoon ci gàllandeku su ma yestan siro topp mu fiiru ndox mi bu gàllande koo baax gas dafay fiiru ndox mi su may tansiq topp mu soroxnde koo bi am fii ci bakkanam almaa ndox mi bu sa bu gàllande koo baax gas day soroxnde ku ci ndox mi waya tansiroo te dana fiiru ndox mi fiiru lay te ne ñaalu dana mu def yeddoo loxoom xalaam fii ma set mu ngi nii yajaalu dana mu def yedd loxoom alaam fii ci bakkanam kam te xaati yi ni muy ñandoo mu ne comme ni muy ñandoo noonu lay day mel ni kuy ñandu teg loxoom ci bakkanam puus ndox mi mu génn loolu mooy istinsaar uyu si oo dana ko doy aqallu lu gën min salaatin ñetti yoon fil matmadati ci gàllax ndeku wala stinsaax ak sorox ndeku su fekkee dafay gàllax deful lu man ñetti yoon ndax ñaari yoon la def wala benn yoon kon itam dana doy wala sorox bi deful lu man ñetti yoon ñaari yoon la def wala benn yoon kon itam dana doy oy si woo dana ko doy aqallu lu gën a néew min salaatin ñetti yoon fil matmadati ci gàllax wala istimsaa ak soroxndeku woo dagan na ñaal ko jamoo dalika boole galaxndeku ak soroxndeku fi xarfatin ci tànk waahidatin ba de benn su ko neexee benn tànk bi rek mu galaxndeku ci soroxndeku ci ba mu duyee loxo yi ba mu fees mu galaxndeku su ko mu wéy soroxndeku ci waaye wan nihaayat dayo bi daal ahsan moo gën a rafet waye li gën a rafet mooy nihaayee bi mooy juróom benni tànqin ñetti gàllandeku yi benn bu ne tànqina boppam ñetti sorandeku yi benn bu ne tànqina boppam loolu mooy an nihaaya mu ne defee ko noonu de moo gën xam nga mënu ko xam summa gannaaw bum sorandekoo ba fiiru yaa xudu dana mu jàppee almaa ndox mi saa bu ko soobee bi yedey ci ñaari loxoom jëmyaan bi mu dem boole bu soronde ko ba biiru la wara a jëm ci cëlmaay ñaari loxoom yi ci lay duy ndox bañ feer saa bu ko soobee mu jàppee ndox mi bi yeddi ci loxoom alim naa bare ndeyjoor fay ñaalu hoo mu def ndox mi bi yedey ci ñaari loxoom jëmyaan bi mu dem boole su ko neexee loxoom ndeyjoor bi lay duy ba mu wàññi ci dara ci loxob càmmooy bi ñaari loxo yëpp def ndox summa yanquluhu topp mu toxal ndox mi ila wajhi jëm ci xar kanamam su ko defee loxo bi bu duyee ndox nag ndox moomu lay jël yóbbu ko ci cëlmaye su boobaa mu wattandeku yaan loxo bi ndax su ko yaanee ndox mi jeex loxo bu tooy bi mooy dem ci cëlmaay su boobaa dootu nekkati xaslul wajhi masul wajhi lay do loolu day yàq njàpp baaxut dégg nga watleku itam teg ko tegin wu xiir a wu xam ne day waral ndox mi tasaaroo du mën a tee wàcc ànd ak bi loolu bu ko defee toy toy loxo bi rek mooy jeexital ci cëlmaay bi te waa dootu nekkati raxas masu lay doon kooku day yàq njàpp watleku itam teg ko ci digg cëlmaay bi kon lii kaw gi du ko raxas yëpp da koy waxtandeku su ma yaaxudu topp mu jàppee almaa ndox ma insha bu ko soobee bi yadayhi ci ñaari loxo jami'an bi mu dem boole mm. wa insha bu ko soobee mu jàppee ko bi yadihi ci loxoom alim naa bare ndeyjoor mm. fay jaxaluhu mu def ndox mi fi yadayhi ci ñaari loxoom jami'an mm. summa yanquluhu topp mu toxal ndox mi ila wajhi jëm ci xar kanamam fa yufrixuhu mu sotti ndox mi alayhi ci xar kanam bi xaasilan la raxase loo xar kanam bi bi yedey ci ñaari loxo raxas cëlmaay bi min ala jafatihi tukkee ci gën jaay kawe ci jëxam buy raxas cëlmaayam mu ngi dalee ci fi gën a kawe ci jëf waxadduhoo dayoom manabitu san rasihi mooy sax waaye kawari boppam bare bu ñu baaxoo fi gën a ci jëf mooy fi kawari bopp de dalee sax ci haada waaw fi kawar yi bokk da dalee sax ci aada su fekkee moom dafa leer dana am lu bokk ci bopp bi te amut kawar loolu du ko raxasaale ndax bokk duñ ko raxas su fekkee dafa bindoo bëri kawar dana am lu def kawar te bokk ci silmaay bi loolu da ko war raxasaale fi kawar yi bokk da dalee sax ci aada foofu lay dalee mooy boo leeralee sa ñeenti baaraam yi nga teg ko ci sa bët ñaare fam boobu mooy awal manabiti sanres al muhtar dégg nga ila tarafi daqanihi ba ci pet daqanum mooy ba ci ron ngaam loolu mooy gëddaayu cëlmaay bi wa dawra waji ak yaatuwaayu xar kanamam kullahu léppam dafa war a xas lii guddaayu cëlmaay ba mu daj ndaxam lii yaatuwaay bi lépp nag war na ko raxas wa dawra waji ak yaatuwaayu xar kanamam kullahu léppam min haddi azamay lihyayhi tukkee na ci dayoob ñaari yaxi sikkiñam ila suduxayhi ba ci ñaari suduxam mooy fi ñaari yaxi sikkiñ dalee ba ci ñaari ngaam mooy diggante nopp ndeyjoor ba ci nopp càmmooy wa yummiru dana mu rombale yadayhi ñaari loxo alama ci li nga xam ne xaara xóot na min zahir ajfani ci kaw ay mbati bëtam su fekkee ay bëtam dañoo xóot na bàyyi xel kaw mbati bët mi lim gën a suufee teewul ci seulement bi la bokk war na ko raxasaale waasaari di jafat yi ak ras-ras yi su fekkee jëham dafa ay ras-rasu na ko bàyyi xel war na ko raxasaale wamaa ak li nga xam ne taxta marini yi nekk na ci ron sukku bakkanam mooy li nekk ci ron paxi bakkan min zahiran fii ci kaw bakkanam yaxsilu dana mu raxas wajhahu xar kanamam hakada naka nii salaasan ñetti ni lay raxasee xar kanam ba mu ne ñetti yan xulu dana mu toxal almaa ndox ma ilay jëm ci xar kanam bi wa yuharriku dana mu yëngat li yeddahu sikkiñam fi xasli waji ci raxas xar kanamam bi kaffay ci ñaari ténqam li yu daaxilaa ngir na tàbbi sikkiñ bi almaawu ndox bi bi ngay raxas sa xar kanam sa sikkiñ da nga koo bësee sa tënk ndax ko ndox mi dugg mm-hmm. yu xariku dana mu yëngatee mm-hmm. lexiyatahu sikkiñam bi bi ka fi xas fi xas li waji yi mm-hmm. ci raxas xar kanamam bi kappa yi ci ñaari tënkam di yu daaxilaha ngir na ko tàbbi mooy na tàbbi sikkiñ bi almaawu ndox ndox mi li demee sanari ngir jañet kawar limaa ci li nga xam ne yu laa dana dajeeg moom mel maa yi ci ndox da yow xam nga kawar bu ko ndox da koy sànni léeg-léeg kawar gi fi mu sax fu ñu war ragga la walaysa alayhi waru ko nag sax lii doxaa xëli sikkiñ boobu fil wudu yi ci njàpp fii xawli malikin ci lu ñu siwee waxi malik dafa am ñu ne xëlil googu mu ngee war ci su fekkee day sangu waaye su fekkee day jàpp kay te muy sikkiñ bu kon bés googu wareewu ci loolu mooy li si ci wax waxu imaamu malik wayu rii dana daw dana dawal alaya ci sikkin boobu yadayi ñaari loxoom ila axiriha ba ci mujjëg sikkin bi day jël ñaari loxoom dawal ko ci li ko dalee fi kawar sikkin bi sax boy cat kawar yi mooy da koy caab lii mooy sëlmu summa gannaaw bu mu raxasee xar kanamam ba mu xàgg nag yaxsilu dana mu raxas yadahu loxoom alyum naa bari ndeyjoor su paree ci cëlmaane ci loxo lay dem mu ngi jàkkee loxoom ndeyjoor salaasan ñetti yoon awis na tey ni wala ñaari yoon mën na ko raxas ñetti yoon wala ñaari yoon ba mu lay jàngal sëlmu daf waxoon yaxsilu wajahu hakada salaasan hen ci fii mu ne summa yaxsilu yaddahu lyumna salaasan awis na tey ni gis ak loxo ñooy hem ci nangu hem ci ñaar ak dem ba ci ñett ba mu lay jàngal tellement yi daf ne yaxsilu wajhahu hakada salaasan hemti xar kanam dafa bëri ay rukk-rukk ñàkk matal yomb ci te mbëggal la lu mat moo tax bi mu la ne man ko raxas ñetti yoon rek mu yem ak yow boobu bu loxo nag demeewul noonu te bëgg na laa jëriñ ne ñaar doy na moo mu ne salaasan mu teg ci awis na sayin dégg nga waxtilaafu l ibarat bi ixtilaafi l-i'tibaaraat hmm. ah hmm. ñaare ay xalaat yu wuute waral ay gis-gis yu waral dégg nga hmm. yu fiitu dana bëbal alayha ci loxob ndeyjoor boobu almaa ndox mi da ciy sotti ndox wa ya'rukuhaa te mu raggee ko bi yadihi ci loxoom al-yusraa bare càmmoy raggee ko loxo càmmoy wa yuxallilu dana mu xalil asaabi'a yadayhi baaraam ñaari loxoom baax daxa yenn baax din ci yeneen ya day xalil baraami ñaari loxoom mu ngi koy xalilee ci kaw nag kon ñi jàng lool ba beneen yoon incha allah dégg nga man ñi jàng lool